asalaamaaleykum mbokk internet yi safo Lambaye Info TV tey ñu ngi fii ci marché bu Lambaye fi nga xamante ni ñi nga xam ne ñooy def safar depuis premier safar ba léegi euh, ñu ngi ci safar di tàngal kafe di jox jaamu yàlla yi léegi nag ñu nekk ci wàccaay woo xamante ni dañ koy waaj a tëj muy alxames incha allah. ñu ànd ak euh, jëriñ ji nga xamante ni maanaam moom depuis ba safar gi tàmbalee avant bi bi weer bi jógee bu màggal ak léegi rek muy laaj ay di préparer bis bi nga xamante ni moom lañ dëgmeel alxames kon Baye Gallas bu ko defee nga nuyoo présenté wax yow la kat. waaw salaamaaleykum si Moustapha ñoo lay ziarewaat di nuyu Lamba Info la jox sa wàccuwaay bu baax. di wax ñooy fii ci Lambaye ci wàccaay safar gi depuis ba mu commencé ba léegi première safar ba léegi ñu ngi si fii ci diwaanu Lambaye ñu ngi ci seggum kafe yi ci wàccaay suñ tëj te alxames incha allah waaw nan daal lañ fi ko ñu ngi ci xaram matt yi ne ñu ngi ci seggum kafe yi depuis première safar ba léegi biñ ubbee chaque jour dinañ segg kafe jox ko jaamu yàlla yi waaw ñu ngi waajal nag tëj alxames di ci woo ñëpp diwaan làmbaay gépp fu ñu nekk biir réew biti réew di soññ ñëpp comme que làmbaay la dañun làmbaay la ñuy defar da làmbaay la moo ñu tax kon dañ koy waaje fii ci làmbaay jëm Touba maanaam lan moo waral ngeen jàpp ko ci alxames bi ndax da ngeen a bëgg ñi nga xamante ni dañuy ñëw fii ci bisu marché bi mën a xewlu wala moo tax. waaw loolu nag moom moo ñu ci gënal tawféexa daal. comme que jeudi moom fu nit di jógee day ñëw lambay moo waral ñu jàpp ko tëj tegi jeudi pour bernde ñu mën leen koy jox. waaw loolu daal moom mooy suñu yéene ci bis bi daal képp ku fi ñëw ñu wow bernde nga ba waaw sant Sëñ Tuubaa daal. bu mel ne xam naa ne maanaam ñàkkuleen ñoo xamante ni bëgg ngeen bu fekkee ne gis nañ liggéey bi maanaam ndax xam nañ ne liggéey bi yombut ndax depuis premier safar ba noppi ba léegi ngeen di def euh, ay café yooyu ba noppi tëj la war a ñëw ngeen war def ay berne yu am solo hmm. kon du ñàkk ngeen bëgg ñoo xamante ni ñu leen ci jàppale ndax bu fekkee ne am na ñu leen bëgg a jàppale ban ban numéro la ñuy mën a dugal bu fekkee ne jumtukaay muy Orange Money wala muy Wave ban numéro la ngeen di joxe waaw am nañ orange money am nañ numéro weef cant moom si Moustapha ñu ngi ciy woo ñëpp ñëpp képp ku dëkk Lambaye nga nekk fii ci Sénégal ak nga nekk biir bitim réew ñu ngi la ciy woo am na numéro téléphone 77 483 66 73 am na Wave am na Orange Money képp ku ci nekk nag 77 483 66 73 waaw lépp lu ci waaye dugal rek dinañ ko def ci bis bi ndax jeudi lañ ko bëgg a tëj bëgg nañ mu jaar mu ndey ñëpp jàpp si daal. ndax wax dëgg si yàlla bernde neexul kon nag dañ ciy woo doomu làmbaay yëpp fépp waay nekk di seetaan émission Moustapha bi ñu ngi la ciy woo daal nga dugal ci sa ñaq daal ndax ku ci def rek sa bopp nga defal waaw loolu daal lañ ko bëgg a doxal. ok kon baax na loolu la leen loon ci ci fii nii ci marché bu làmbaay di wax na nag yéen ñëpp comme ni ko Baye Gallas waxee ngeen fexe see jàpp ngir bis bi. mu am lu kawe njot nag ku fi ñëw mën a xewlu xewlu gu euh, am solo incha allah jërë ngeen def